xool daal nu ngeen di ko non du ma dara parce ma nekkuma ci woon mosuma si nekk. nit ñee ko doon def rek parce que peut bëgg nañ ma jàppale yaakaar nañu bu ñu ko defee dañ ma ne dina ma neex. mais li muy yàq bëri na aussi parce que ay nit a ngi ci lor ay doomu nit ay jàmbur te du loolu ñu doon moo taxoon mu jóg nañu j'ai demandé à que ñu arrêté lépp et na ñëpp xam ne ma nekkuma ci Facebook. binduma Facebook awma compte Facebook du ma tweeté du ma def yooyu yëpp duma ko def. loolu ma dalal la première étape yooyu mooy xew nag léegi. waaw ah, man bokk man man damaa old fashion nekkuma si loolu. waaye actuel loolu nag. non non je suis pas vraiment dans ça.